أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله bokki jullit yi topp suñu jataay ñu leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo rek ci seen émission Shukran di ñaan yàlla li ñu fi taataan yal na yàlla def lépp di yiw te bu ko defee yiw yal na ko fulandi sotti ko ci sunu ci xeetu yonent bi yëpp sallallahu mel ni ñu ngi ci weeru koor ci jeexital war ci gën a góorgóorluwaat xam ne buur bu toll ni yàlla bu nu xiifloo fanweeri fan am na lu mu ci namm waaye du ak coxor ndax moom bim ñu bindee ba noppi moo waxal boppam ne inna allaha kaana bikum rahima wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima bu leen rey seen bopp man yàlla dama am ci yéen yërmande dama am ci yéen cofeel da seetlu sax ne suñu jataay yi njëkk ya lañu ñu ca waxoon mooy yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla daf ne dama bëgg lu jàppandi ci yéen ne bëgguma ci yéen lu jafe bëgg ci yéen lu yomb nag weesuwul mooy li ma leen sant lu mu diis diis ku am ngànt teggil naa la ko foofu rek la yemoon beneen bi ci des mooy mbokk yi bu ñu fàttalee dafa am rendez-vous bu ñu joxante ak yàlla euh, te jombul ne yow ku demul it gis la kuy dem te li ci gën a yéeme mooy ko demit dootoo dellu si ndax boo seetee diggante daaw ak ren li nga fi wàq ci suuf si suul ko fi ci say nawle kenn xamul nu ñu toll yàlla bàyyi la fi war nga xam ne sa àpp jotagul moo tax mu wax ci alquran ne afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjauna xanaa yéen da ngeen a fàtte ne wala da ngeen a jàpp ne mbaa da ngeen a jortu ne man dama leen a bind rek bàyyi leen fi pour ngeen di foddi dem amut dara lu ma leen sant te yàlla moom fowul foluwul maa ngi joxante nag yéen rendez-vous boo xam ne ala kulli xaalin da ngeen ñëw te ka ngeen di seet si mooy buur bu tedd bi nga xam ne moo tudd al malik mooy buurub dëgg bi yàlla moom nga xam ne subhanahu wa soo kàbbaree di julli sax baat boobu da ko tuddaale mooy maliki yawmi diini mooy buurub bés penc ba ndax wax nañu ne bés penc yàlla dana wax addu junniy at limanil mulkul yawma limanil mulkul yawma ana ko amoon nguur tey ana kan mooy buur tey ana kan mooy buur tey lu mat junniy at ñépp ne selaw kenn du ko wuyu kon ñi fiy wuute woo buur ñi fiy woote woo buur li ñuy woote woo ak négandiku la gu tege ci seen loxo rek te xamaguñu fu ñu jëm ak moom yàlla moom nga xam ni mu ne limanil mulkul ma wax nañ ne dafay xaraat jëmmam ñaar jalaal ci boppam jamaal moo koy tontu na mu koy tontoo nag mooy day génn ne ko lillahi lwaahidil qahaar yàlla mi nga xam ne moo not jaamam ñépp ba rey leen nii kooku dong moo fi buur tey moo tax yàlla ne wa man yadu ma allahi ilahan axara la burhaana lahu ku oote woo leneen lu du yàlla ci kaw suuf yow la nga woote woo boo ñëwee doo am lay ndax dañ lay booleeg moom ma te mbokk yi ku xool ni yàlla di defe war a xam ne li mu nar fonk na ko fonk koo xam ne kenn xamul ñaata yoon la wax baatu yow ma ci alxuraan te yow ma yépp bis penc daanaka moo ca ëpp ca la ko waral yàlla nag dañuy wax ne bu joxantee ak nit rendez-vous nit ke bu tëddee di nelaw rek war naa xam ne moom dootul nit dof la ndax nag mbokk yi yàlla sunu borom bi subhaanahu wa taala bakkan bu ñam dund bu ne rek dee mi ngi la topp te xamal ne dana la dab aynama takunu yudrikukumul mawt walaw kuntum fii bu fi burujin mushayyada waaw yàlla nee na fu ngeen mën a nekk ci àdduna bu ngeen duggoon ci gannaaw biddiw yi ci asamaan si sax du tee bu dee jote dana leen fa fekk jël leen waaw dee moom ku sa ku sa dee jot rek da nga dem moo tax borom téere ba dafay wax ne fa zawwit min addunia fa innaka raahilun ida janna laylu hal taishu ila alfajri mu ne booy dund ci àdduna fexeel wut yóbbal boo yóbbaale ndax am na koo xam ne bi guddi gi soree sax bi fajar di xar fekku ko fi te pour pourtant bi muy tëdd moo gën a wér ñëpp mu dellu waxaat ne wa kam min fata yamsi wa yusbixu daaxikan wa akfaanuhu mansuujatun wa hiya la tadri ba ne na ndaw romb ànd ak cawarte ànd ak fierté di tëbëka dal te fekk na ndeysaan bitig bi ñuy jaayee perkaal bi koy sàng subu sujot mi ngi koy romb mais xamu ko mu dellu waxaan ne kam min saxihin maata min gayri illatin wa kam min saqimin aasha xiinan min addaari bari na ku wér pelab dem hôpital seeti fa malaat ñàkk ci moom yaakaar tax nga tiim ko di jooy te fekk na malaat ba yaa koy gën a njëkk a xam suuf mbokk yi yàlla defe na nu ne dañu bàyyiwaat xel yàlla gën a toppaat yàlla joxaat yàlla sunu bopp te xam ne adduna du kër lu mu yàgg-yàgg dañu fi jóge yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu